ñëpp di ziar ñëpp soxna khadifal présidente union des karimistes département de Mbacké ah, ñu doon wax tay ci li nga xamantene ni moy li xew ta jaaxal askan wi jaaxal ñëpp surtout ñun karimistes yi ndax ñun karimistes yi dañu am candidat suñu candidat Abdou Karim Meïssa sawad la tudd ta buñu ñu tay ci Sénégal gi nga xamné xamuñ ban Sénégal lañu nekk dégg ministre de la justice taxaw jàkkaarloog àdduna yëpp te Karim Meïssa Wade mënta nekk candidat élection présidentielle yi ñu jëm. Karim Meïssa Wade loolu la doon sóoraale ba keroog ba mu bindu jee Koweït te list électorat yi mu taxaw photo boppam caméra boppam wan ko àdduna yëpp ndax xam na xeetu traître yi mu jàkkaar xam na xeetu workat yi mu jàkkaarlool nit ñuy soppiku ñu doy waar ñi mu jàkkaarlool nga xam ne à tout moment mën nañu génn ci beneen anam te ñun ñi ànd ak moom duñu ay muus Karim ay gaynde rek ànd ak moom te danañ xeex jàkkaarloog moom gis nga la xewoon la xewoon ak li nga xam ne moo xewoon fii nga xam ne moo ñu gën a jege muy Gambie bii te Yaya Jammeh nekkoon fi doon fi dictateur bu jaaxal ñëpp Macky Sall bëgg a ñëw taxaw doon dictateur ci suñu kanam duñu ko nangu mukk duñu ko nangu jamais au plus grand jamais duñu ko nangu te na ko dégg nag te mu nekk ca ba lu mu ko jaral dinañu ko jaral ndax dañu am candidat xeex ak moom ta tay la xex bi di commencé te dootul jeex ba kérok muy wacc duñu abal wala muy nangu suñu candidat di dem élection jaxarlo ak mom ndax Karim sa wad vraiment kuko xol xamni ni style président bi moko mom mm-hmm. ki fi nek ken xamul lan lay ndurol kuko wax xam nak ma wax yoru style président du ken, suñu candidat moy suñu candidat moy suñu plan A moy suñu plan B moy suñu plan C. amuñu beneen plan Karim la ñu am mooy suñu candidat te karimiste yëpp ñu ngi ci ginnaawam te fas yéene nañoo porter combat bi te dina ñëw du yàgg dara ànd ak ñun ñu bokk ak moom xeex bi ba yóbbu ko cinquième président du Sénégal yàggatut incha allah.